asalaamaaleykum waa Sénégal ñëwati naa ci seen xibaar yi nga xam ni moom mooy lu xew Sénégal actuellement may wax ak yéen ni li xew Sénégal moom mooy dañoo jàpp ki nga xam ni moom mooy eh, kilifa kilifa nag fan yee passé ñu ngi doon tudd ci mbirum passeport ak mbirum eh, trafic ak yu demee noonu dañoo xëy sànq léegi rek ci ngoon gi ci la ko waa DIC central woolu jàpp ko daanaka fi ñu wax yéen ni mu nga ca loxoob yoon lan moo tax nag di jàpp ko ba léegi xamaguñ ko. waaye xel yëpp dafa njot ne daal lañ doon tudd ci mbirum euh, passeport yi ak lu di mel ak yooyu tax waa dig jàpp ko waaye tamit lu mën a am ba mën a am daal ñu ngi leen toppal boobu la xibaar ba xam ko ci fan lay indi bu baax a baax bu nu fa jógee ñu dem ci nga xam ne moom mooy Moget ak ki nga xam ne moom mooy ndax Këccëb génn na def benn vidéo ci internet bi wax ni Moget da ko bëggoon a exploité maanaam ko bëggoon a jaay monde bi pour xamal leen ni daal ni moom Këccëb man la wala tamit kat la bo xamé ni mom mo gëtt mom moko dimbali saa su ne ci nag wet na lu ne mel wax ni lamb mom moko ko boole ak mom ginaaw ba nga xamé ni wax nako ko ne na ñew amerik mu sañ ak mom contrat fofu daana ko mu jox kon ko avance bakkar ak avance du mujj ko bi mu ko joxé mom mo gëtt këccëb nee na moo gën dafa yollee ko dank dem ci ginaaw oto ba ci la yëk téléphone mel ni dal koy seen nan xol leen ko mo ngi ni joxna ko xaar bare bare këccëb nee na ci la ko yëk nek mo ci mu jël téléphone def ni moom tamit ñu fayam buñ jógee foofu dañuy dem ci li nga xam ne moom mooy mbënd mi mbënd mi nga xam ne tout le temps moom mooy xew ci bàlle bi at bu ne waaye nag ki nga xam ne mooy président Macky Sall dafa am commission bu ma joxoon ay milliards yu bari ngir ñu taxaw mbënd moomu ñoom tamit xamal lañ ko ne ñoom def nañ alal jooju lépp ci mbënd mi waaye loolee ñu ko wax dañ dafa mel ni dara amu ci boobu moom président comme sàkku na wax ni daana ko képp koo xamee ni daal jox nañ la addiye xaaj gu bari ngir nga saytu mën na booba na nga ñëw ci moom daal di ko leeral bu baax a baax ba mu xam am lan moo ci leer baax baax bu jógee foofu dañuy dem ci wàllu tàggat yaram rawatina ci wàllum football xam ngeen ni Sénégal tey dafa doon eh, jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Congo Sénégal nag moom moo ko mujj gagné ñetti bal ci benn Sénégal nag bi ma ñaari masam boo xam ni qualification mondiale la Sénégal am na ci ñaari victoire coow li nag bari na lool ndax ñu baree ngi wax ni Sénégal bu amee qualification équipe na rek lay am waaye tamit bu demee kan daan na ko du fa mën a am dara. yaakaar naa ne loolu moom moo nekkoon xibaaru ngoon gi nga xam ne moom lañ leen gëstuloon tey waaye ñu leen ko yàgg wax rek bu leen fàtte abonné ci chaîne bi ndax xibaar yi moom saa su ne danañ koy segg taataan ko bu baax a baax baax ngir mën leen ko indil lu wér a